salaamaaleykum mbokki àdduna salaamaaleykum mbokki Sénégal nuyooti nañ leen bu baax a baax di leen ziar am contentement taamu bi ngeen taamu seen émission Leral TV waaye seen émission bu mag boobu faqat dalal na beneen ndaanaan ban ndaanaan la ñu dalal muy ndaanaan loo xam si ni ku ne xam na ne ko bërki dee moo njaay def na jaloore bu mag ci biir làmb muy kan muy Alboury Alboury la ñu dalal tey suñu émission faqat di kenn koo xam ne ndaanaan la ci bërikat yi am na lu mu wane waaye nag fan yii nag dafa mel ne ñoom ñoom ñoo appoo fa Alboury maa ngi lay nuyu Alaaji Fàllu maa ngi lay fay ba biir kër fee cinq cinq fay di nuyu Sénégal yëpp di nuyu monde entier di sant yàlla yàlla mi nga xam ne moo ñu kalajaaneel kaw ci kaw ba li ci kaw àndul ak li ci kaw daanu sunu kaw kalajaaneel ñu li ci suuf ba ànduñoo ak li ci suuf dugg ci biir suuf di sant sama baay bu baax a baax di gërëm sama yaay di ko wax yàlla na ko yàlla yërëm taxare ko aljana di nuyu senegal yëpp di nuyu waa Grand Médine di ma dëkk di nuyu tamit sama waa dëkk waa Jolof waa Mbalaxe di nuyu waa Kaolack nangaan di nuyu tamit waa Kër Massar ak waa Parcelles Assainies di nuyu Sénégal yépp di nuyu sëñ Fallou di nuyu waa leeral xam naa ne leeral dëgg-dëgg fii lay leeree. Mhm. dëgg-dëgg leeral fii lay leere nga nekk écurie Grand Médine kan mooy Alboury ak lan moo la dugal ci làmb Alboury li ko dugal ci làmb euh, amur la ah. aw ma nijaay juy bëre aw ma maam buy bëre aw ma papa juy bëre waaye sama papa jàmbaar la woon samay maam tamit ay jàmbaar la woon te nee naa la la ca maam seto koy jël lu waaye gàtt dégg-dégg war naa xam ne Alboury buur la woon euh, ma naan la Alboury biram penn njéeme mm-hmm. biram cukkuli cuquli cikili njeglaan njiglaan sere sere njaajaan njaay maa ngi ni toog setu birama ndeela ngaan njaay bi ndax bi ñu ko gile taseel ak sàmba buuru njaay sàmba buuru njaay bu kaala bii ga sàngu leen nguule nguule baa ngi xale daa war a xam boppam des fois nag may fakastalu di way ci sama bopp ci dogo faal ak maawa joor kumba sàmba yaa jaloor siiw foo ko déggee dawal ta xam ne jaan la bu la màttee nga dee bu la burusoo nga gumba boo amul gàllaaj doo ma mën a dékku nee naa la ku naan benn ñaata ku naan saam ñaata bokkuñu la ca maam seta koy jël sa maam ku ko musaana tooñ waaw bu ko nit mësaana tooñ kenn day bàyyi bañ mat fukk hmm. mu boole duma ku mësoon a yàq ay waxam góor musu koo yeb ku mësaan a yàq ay waxam di nga ko defaraat noo koy defaraate di nga ko defaraat wala mu woo la ba nga ñëw mu noq la ba nga duul. sa def loolu. te la ca maam sota koy jël. te loolu nga jël yow. coppatiwu ko dama koo tibb. dama koo tibb te nag euh, ñu ngi senegal ñu ngi ci làmb nañ xool seetaan. at bu ñu duggee ci bu ñu duggee ci làmb mbokk yi. ngeen a ngi dégg loolu Aliboury ndaanaan la di xale boo xam si ni xale la waaye tamit xam na fi mu bokk xam na ñi mu bokkal waaye Aliboury lan moo la dugal ci làmb amour moo ma ci dugal bëgg ak ak ñeme lu tar lu metti ak tamit gis sama situation famille sama situation gàlle ñu bëri ñu échec famille bi ma xam ne man mii su ma échecgee du baax ma ñëw dugg ci làmb ji te làmb ji dugguma ci pour dara dugguma ci pour duma kenn dugguma ci pour dara dama ci dugg pour teral sumay waajur ak ñi nga xam ne ñoom laa bokkal ak ñi nga xam ne ñoom a yaakaar ndax làmb dafa ginnaawam dafa yaatu. luy luy échec bi luy bi luy échec gu gàll bi. juste samay sama man suñu famille amul millionaire mm-hmm. amul milliardaire. amul ku ku ñu xam ne bu ñu ko séenee da naan mi ngi nale ku ñuy joxañ amu ko. amu ko amuñu kuy faj buumu gàcce yi amuñu ki nga xam ne tamit heure bu famille bi seen bët xonqee moom lañuy dem laaj mu jox leen amuñu loolu dañoo yàgg di dund lu metti amuñu dara dara dara mun naa ne. mais jom jaa ngi fi. mun naa ne ñun suñu famille dañuy dund lu metti amuñu xaalis am nañ am nañ fulla nag am fayda am jom. yàlla nag moo ma dimbale ma bëgg làmb ndax man làmb màgguma bëre jamonoy tànku neen laa ci nekkoon ba tey champion bu ne bëre naa moom c'est que nit ñoo door public bi ñoo may doog a xàmmee nii rek mais damaa yàgg bëgg làmb yàgg bëgg entraîner te dama cee bëgg a teral samay mbokk xaalis laa bëgg génne sama famille ci situation bi ñu nekk yóbbu leen beneen niveau ndax àdduna bi yàggul. Mhm. àdduna bi yàggul bu imaginer nga dund ba dee amoo kër mm-hmm. ah musoo téye cinq cent mille liquide musoo am mag bu ko téye mm-hmm. am na am na ñu dund ba dee te ba jëm mag ba nekk paa musuñu tee cinq cent mille yu daje. bari na bari bari na trop. bari na man nag ci famille yooyu laa bokk. Mm-hmm. amuma xaalis amuñu amuñu dara. mais am nañu suñu ngor. fokk yóbbuwuñu te gëm nañu suñu bopp. bu soobee yàlla nee naa la saako pombiteer bi pombiteer laa si. pombiteer nga ci biir. làmb ji incha allah sama wërsëg moo ci ne képp ku ma jàppee comédien yaa ngi yaa ngi nax sa bopp damaa mën a bëre piir wane damay xeex piir damay ambiance lépp lu làmb di def dama koy def bu la bu la joxoon saraxu mbër bu boo boo ma rombee sa sarax du nangu buñ la joxee saraxu mbër bu ñëwal ba ci àll bu nga jox ma ko. te xam ne man lépp lu làmb di laaj dama koy def pour génne sama famille ci situation bi ñu nekk. ñu ba léegi ba léegi Alboury ñu des ak yow ci famille bi Alboury way jur mus nañ la tere làmb muy sa papa wala sa musuñ ma tere làmb. papa ngi dund ak mère bi. sama yaay yi nekk fi sama papa fi nekk sama papa daf may ñaanal bu baax a baax di ma jox ay gàllaaj di ma wutale ay ay ay ñaan dama da di ma naan ma del takkateel naan daf ciy jàpp bu baax a baax a baax man maa man dama cee war a génn samay sama sama famille dama ci war a génn sama famille bu baax a baax a baax di naan nag adversaire yi làmb ji ñu bàyyi ñu mooy tente bi. ñuy bëri ñuy bëri suñu biir quoi. balaa ñoo ñëw parce que temps bi ñu am sama diggante ak yow yàgg na dañuy dugg si por dañuy dugg si situation yi am dañuy dugg tamit sa diggante ak sa famille parce que. nit euh, en tant que mbër ak way juróom bu jigéen nan nga daan dund ak sa way jur bu jigéen bi mu fii ne bi mu fii ne naka ngeen nekkee woon ak sa yaay parce que buñ nee buñ nee mbër wala buñ ne góor ñu ne yaay balaa ñu wax baay yaay la ñuy wax dañ naan boo amee fukk joxal yaay juróom ya jox baay ja lu si des naka nga daan dund ak sa yaay bi muy dund ak moment yi nga toll nii jamono ji mun naa ne lu ñu am suñu yaay la ndax dafa sonn. am na loo xam ne Fallou mënu ma ci sax développé ndax suñu yaay dafa daj lu dee pour ñëw ba yàlla def li muy def ñu amoon yéene teral ko trop mais bu yàlla ne waaw léppay changé yàlla def mu juge fi ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax am na yenn yoo xam ne jarul wax ndax tey jii nii su ma ne sama famille lii la ñu dund am na famille buy dund lu gën a piir loolu. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. fii kenn amul li nga bëgg. ku ci nekk rek nee naa la ñi ñi yor problème mu ñi yor ay ay dix mille chaque jour bu ñu xëyee dañuy am problème mu dix mille. ñi yor chaque jour cinquante mille chaque jour bu ñu xëyee dañuy am problème mu cinquante mille. Euh, millionnaires yi problème mu million rek lañuy am. kon ñun ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax amuñ lu ne gaañ mais ñu ngi sant yàlla ndax heure bu ñu xëyee dinañ ndékki dinañ añ. ak népp nuñ ko mën a amee ba def ko dinañ ko def ba suñu famille lekk làmb ji nag dama ci nekk pour teral sama famille ak teral sama boy yi nga xam ne xëyuñu gontuñu liggéeyuñu defuñu dara dama bëgg ñoom ñëpp ñu am ci lu xam ne dañ ciy jàpp mu jugee ci man loolu mooy sama mbébét ci làmb mais ñëwuma ci pour duma kenn ñëwuma ci mais mbër bu ma ci jàpp mu ne lu nuus dama la ñuus naa la daan rek man nu ma daanee baax man naa la daan rek yéeg. est-ce que euh, daan yi ngay daanee mbër jamono ji est-ce que nekkul xale yi mënuñu la fa jaaree moytu la. xool bëree bi ngay bëree bëree bi ngay bëree ak xeex ak duma yi ngay duma gaay duma yi. waaw làmb la rek ku ci nekk boo amee combat. jot ngaa duma gaay yi sax mais jot nañ laa duma ñam nañ la kay. ku ci nekk boo amee komba ku ci nekk boo amee komba say mbokk dañuy jóg yow tamit nga jóg euh, sa adversaire tamit ay mbokkam jóg yow tamit ñoom moom tamit mu jóg de daal nañ bàyyi mooy tonta bi kenn musumaa noq. keroog sa bët bi lan moo xaw ma daa am lu mu dugal sama bët bi. lan la si dugal. est-ce que du nokkos xaw ma ndoxu liñ daan kooku daal am na lu mu dugal sama bët mais loolu du ku. du ku man xam naa ku. nee naa la xorom bu duggee sa bët wala kaani wala kii guu boobu da koy sentir mais keroog sa bët ku ko xool fàllu dama ne la man damay bët bi keroog xonk na coy loolu du du du loolu nokkos la nokkos nokkos fàllu man su ma nee nokkos la bu ñu werante ndax man damay fréquenté waañ xam naa guu nokkos eh, alburi kuu kuu nga ne nokkos la kuu bu ñu la dóo kuu bu ñu dóo ba sa bët xonk nga ne seetaan naa làmb ji dangaa gis moom man ma jël kuu moom moo ah, jël kuu lu xonk sa bët bi ah li ma la wax rek nokkos la moom moo créé ay nokkos sama ay ay ay ay def ko sama bët bi. mais xam nga ne loolu du ko. Alboury loolu mën de. kooku man maa ko ñuus mais musuma ñuus ci kër àddina yow bu dee seetaan nga làmb ji wala ngeen teg làmb ji ngeen xam. no làmb ji man amul seetaan làmb ji maa nga fa woon. voilà kon ku amu fa mais tamit moment boobu ma daanee ba pare suma bët bi la la doon saf oh, loolu metti na. nokkos la yi bu fekkee ne bu fekkee ne jamono ji jóge nga ci victoire bu rëy ñuy ñaanal sunu borom defal la jaam jóge nga ci victoire bu rëy Alboury fan la teg bëtam ak fan la jëm parce que gis naa gars yi ñu bari di la daw nee naa la ndaanaan laa ñaari yoon mhm. damaa mën ci bii boor mën ca bee boor mbër laa ma tool du ma di ko wax képp ku ma jël nanga liggéey ndax man combat jànq laay bëri mbër bu ma ci am dinga xeex di nga bëre te bu soobee yàlla dinaa la daan dinaa fecc dinaa ambiance def sama wayu ndëpp te man damaa bëgg combat jànq nañ ma na ma ndaanaan jël ndax ñaari ndaanaan fu ñu dajee yaakaar naa ñetteel ba day kontaan ñetteel bi mooy amateur yi. sa diggante ak booy jinne ku la joxoon avance papa booy jinne di nga ko jël. nee naa la laajuma ci benn mbër kuñ ma jox yaa Euh, ki nekk ci kaw Modou Lo xaw ma ñoo bokk dëkk parcelle. Modou Lo mais à part Modou Lo laa ñi ma dëkkal ah mbër bu ñu ma jox pare naa pour bëreeg yow nee naa làmb dama fi ñëw nii pour am lu ma régler dem nekkuma fi di toog nii man booy yi ma leen a jeexal mbër yi dañoo bëri dañoo nduroo dañ ma jox mbër yi ma. mais am na koo xam si ni boo tëddee ba guddi sa néeg di dina nekk sa xel li nga xam ne kii bëgg naa ko tey pour laalee ak moom. te combat bi combat jànq la loolu amut man du ma xalaat kenn. <coughs> Ah. du ma xalaat kenn mais di sincère sama staff ñu ngi dox ci combat yi kuñ ma jox li ma la waxoon rek. en tout cas daal mbër ma si jox bu ma ne la nuus dama lay ñuus amul xalaat ku dee bàyyi projet. Alboury da ngaa toog ci palaato de mbaa mbëri mbëri doo yaakaar ne micro yee neex rek ba ngay wax lu <laughs> Papa Boy man da laa ah, ma jël bañu kenn de. ku ma jël moo bëreeg yow. ah Baye moo Assane Ndiaye. wool Assane Ndiaye wool Fallou yi Assane bu ma woowee Assane Ndiaye. pour tout. su ma woowee Assane Ndiaye dina ma wax Albouri moom foofu la tollu ci moom. Assane Ndiaye sama sama grand frère la woo ko. waaw. Assane Ndiaye. jàmm rek lañ lay doy de. dañoo invité benn champion boo xam ne koo xam ne ndaanaan la ci làmb ji. wax dëgg yàlla instant bi ñu toll réew mi Sénégal bëgg ko réew mi jox ko bopp. muy Alburi. waaw Alburi nag fi mu toog nii na mu Alburi Papa Djiné loo ci wax en tant que yow promoteur bu mag bi. Alburi borom benn njéeme. waaw sama mbokk doomu doomu baay la. Ah. <laughs> maa ngi koy bëggee bu baax baax di rafet lu li muy def. muy Fallou Ndiaye Assane Ndiaye ñu ngi lay bëggee bu baax a baax sama mag ju baax di waaw yow yaa ngi yokk làmb yow nee naa lu baax ci réew mi Njaay la sant. waaw loolu lu wér la. Sénégal Njaay Gaynde Njaay lépp lu baax ci réew mi rek Njaay la sant. Assane dëgg la dëgg la wallaay ndeysaan euh, combat. Mhm. ñaari mbëri ngay toog wax leen ñu ñu ñu ne bëggante nañ. Mhm. mais combat bu ma neex la. su mhm. fekkee papa bëgg na. bëgg naa. waaw combat bu ma neex la macha allah. jërëjëf. waaw maa ngi rafetlu liggéey bi nag ah. Mhm. jaajëf Fallou leer foo foo toll si foo journée yi. waaw maa ngi waaj la 16 janvier. Mhm. ni ma la ko waxeen rek caatu yoof Youssou Ndour. Mhm. booy Dakar xeeru ngor. non caatu ngéwél. xeeru ngor de Koña. Sorsu Buus. booy jaxaaw Nokia Giro Seras. caatu montagne. doomu yoof dëgg la euh, laay birisi li teg soog mhm. loolu lépp benn journée la si kàttanu yàlla loo loo loolu baax na loolu am na doole incha allah waaw ñuy ñaan yàlla sunu borom mbay nam si journée yooyu ñu koy waaj bu baax a baax a baax si kàttanu yàlla jërëjëf jërëjëf Assane jaajëf Assane sama promoteur bi loo tëggul baaxul jërëjëf jërëjëf jërëjëf promoteur bi de noppi na man nee naa la man bàyyiwuma fi benn mbër. <laughs> kon kon combat bi taxaw na combat bi say. man moom man moom pare naa pour mbër yëpp. non buñ ma mënoon a wool papa boo jinne nag dina baax léegi pour ma jot ko. waaw man moom pare naa pour mbër yëpp. Hmm. papa booy jinne bu ma jëlee dina xam ne <laughs> man satu jinne laa jinne mënumaa jombal papa boo jinne ngay wax de. kooku day xaar ba. papa boo jinne ngay wax de kooku day xaar ba jamono neex. ndaanaan la de. nee naa la ku naan benn ñaata ak ku saam ñaata bokkuñu. benn ñaata lay wax. te man Sam ñaata laa jënd mais kii jënd ak kii waxaale mënuñoo yem. non bokkuñu maa moom bokkuñu. lan moo leen wutale man nag du ma jël pee di xëccoo ndaare. lan moo leen wutale maa ngi moom bokkuñu. nee naa la man dama verge. da verge. da xale bu ndaw deux ans. deux ans dama may déglu. xale bu ndaw deux ans deux ans deux baaraam sawlaal. xam nga ne xale du mag. kon yow da ngay màcc baaraam. saw di sawlal waaw. ba pare verse moom. te moom. nee damay tëdd si yàpp damay lekk yàpp damay lekk yàpp di naan meew bokkuma xale yi tëdd si yàpp di génne meew dégg nga ma. bu boo fi taxawee boo fi toogee ku la booleeg Papa Djiné ñeme ngaa toog moom fii jàkkaarloog Papa ne di wax ak moom lu la saf. yow man ku dul papa booy jinne <laughs> kooku laa la wax. jinne ngay waxal de kooku ku dul papa booy jinne su ma la jàppee ah dama la nuus dama lay ñuus ñibbi noos du xalaat nee la ku dee bàyyi projet. ku dee. lafañ du tëb ku dee bàyyi projet. jinne maa ngi lay nuyu bu baax. fi la rawee man la Fallou leeral TV. yee lu leer. maa ngi lay ziar bu baax a baax ana Ndeye. yàlla na yàlla dolli jàmm. amiin incha allah. papa yaa ngi en direct Leral TV. Ah. waaw parce que dañoo am benn ndaanaan lu ñuy invité. waaw muy Alboury. Alboury waaw. di champion bu mag. waaw. ma toog ak moom di waxtaan ak moom. waaw. ma dugal uh, Assane Ndiaye ci ligne bi. waaw. ma ne ko man de bu ma sañoon am diggante Alboury ak Papa Boy waaw waaw. combat boobu daal la Sénégal soxla ñëpp moom lañ soxla Papa booy Djiné ak Alboury. Papa booy Djiné ak Alboury. waaw. moom ngeen bëgg. moom la ñu bëgg te Alboury ngi nii di la dégg Sénégal a dégg réew maa ngi lay dégg. Alboury est-ce que bëgg na ma man. <laughs> kan. Alboury ko. man amul ku ma bàyyi ci làmb ji sama papa ak sama yaay rek laa fi bàyyi. Papa Boy Djiné. papa. allo. ma ne yaa ngi dégg Alboury. Alboury mu ne. nee na papaam ak yaayam rek la fi bàyyi. Ah, ak ak samay frère ak samay sœur rek laa bàyyi ci làmb ji. lu leer kay yaa. Ah. wallaay. yaa ngi dégg li muy wax. Alboury waaw maa ngi koy dégg. Mm-hmm. waaw man de xam nga instant moom li yorof di wax rek. Mm-hmm. waaw kii kii ku ku bëgg ku la wéetali moom. am mm-hmm. na wër ah. bi du leen boole. Alboury moom champion la ñu ngi koy nuyu di ko siyaar bu baax. ñu ngi lay fay. yaa di ko jox wàccu waayam sëma waaye man moom làmb man fi ma toll si làmb mooy ku ma ku ma bëgg rek. Hmm. te làmb bëggu ko man du ma la bañ. Hmm. Assane Ndiaye de soxla na ko. waaw dama ne moom. Hmm. moom na bëgg rek moom. waaw moom bu bëggee rek man ragaluma loolu maay doom basin bi. laa ilaaha illallah. surtout biir man nee la ngeen jaay bi ngay waxal. barki sëñ man man man xamoon naa ma man mii gëj naa tapet. dé déglu Alboury déglu. dama dégg mu naan maamam ku mosaan a doon da leen di waaw. bi ko waxee kara doon li ko wax dégg na ko. <laughs> waaye ko man sama a doon da de du de kon de fii dina toj. <laughs> ay bëri sàmm yoo la man dama koy bëggee mais moom na bëgg rek Assane Ndiaye moom sama garaa la xam nga moom promoteur bu mag la moom bu bëggee rek loolu méttiwul si man incha allah. ah. waaw yàlla baax na incha allah loolu moom méttiwul. léegi léegi kon léegi leen kon yow pare na yow méttiwul ci yow méttiwul ci Alboury si Assane Ndiaye la des. waaw Alboury waaw moom. yaa Assane Ndiaye nee na pare na Assane Ndiaye nee na yéen ñaar boo leen d'accord rek moom pare na pour jox leen avance yéen ñaar. Assane Ndiaye léegi léegi ne ko moom léegi léegi nii nii nii nii nii nii may wax ak moom nii. waaw. bu ko neexoon léegi mu dugg nii si si émission bi léegi léegi léegi léegi léegi. Hmm. ne ma ñaata ngay bëre bu ma li ma bëgg ma bëre ak moom. la ilaha illallah. sama yaram dawul lool sax. ba te tàppatoo loolu. non sama yaram dawul loolu de. ah. waaw Alboury moom na bëgg rek. yow loolu biti la fanaan. te sànguwul sax. ma ne ko Alboury moom na bëgg rek. pare naa. pare naa pour mbër yëpp. yow damay sawar pour bëre yow. waaw loolu méttiwul ndax champion nga. non yow nga man wax dëgg yàlla ndaanaa ni laa bëgg di bëreel. combat jànq ngi ni li combat jànq la bi kenn dootu ko lam laame na bëgg moom na bëgg promoteur yi ñeneen see def li ñu bëgg parce que am na yenn yoo xam ne xam nga rek du du làmb yomb mais moom si jëm boppam champion la te Albouri Papa Boy Djiné loolu xam nga jar la. Mhm. loolu ku ko tëgg xam nga du làmb daal. d' accord yow kon Papa Djiné dinaa la woo. loolu Djiné sax dañuy seetaan si. maa la wax loolu. barki Seydina Mohamed xam naa da ngay ambiance damay ambiance. nee na boo ko jëlee ko defati de. non non yow yow yow yow boo ambiance rek su ma ambiance da ngay xaar. non non non bokkuñu nag buy ma. baal moo fecc boo boo mën a fecc boo feccee gars yi bu ma feccee dootoo fecc yow. <laughs> waaw coono jub yàlla baax na taw fee. waaye kon Papa Boy Djiné ñëw ñu def noonu dinañ déggante. jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ñu yéen a taamu seen seen émission mag boobu fàqat gis ngeen combat bi leer na Papa Boy Djiné pare na promoteur bi Assane Ndiaye pare na Bawol Bawol bi Albouri Birame Penda Ndiémé pare na Albouri dégg nga li la Papa Boy Djiné wax. Papa Boy Djiné damay kontaan ci moom. Hmm. di wax nag ay mbokkam laay wax nañ ñu bàyyi ñu bëre ndax ñun amuñu lu dul bëre. léegi ay mbokkam nañ leen bàyyi ngeen bëri. xam naa li ma la wax man yàgg na nit yàgg na jël sama avance waxtaan seeg ay mbokkam ñu ne ko delloo ko ay mbokkam nañ ko bàyyi mu bëre staffam nañ ko bàyyi mu bëre ay mbër lañu ñun war nañoo mën a bëre samedi bëre dimanche. yéen ay mayante xaalis bëre lundi. Mm. ndax ñun ay xale lañu te dañoo war di bëre ay nekk fi di tànnanteeg barki bu dul Papa Boy Djiné sax ak ku mënti doon man kuñ ma woo man du delloo avance. ndax man sama métier la du ma delloo avance bu dof la foo nag ba jël ko hmm. nee naa la ku ñëw mbaaru macaam macaam teg la tànk bu ñëwee naa ko teg tànk ba mu daw ku ñëwul mbaaru macaam xanaa mu bañ a ñëw papa booy ji de ndaanaan la de ndaanaan la mais nee naa la jinne la mais man sëtub jinne laa jinne maa jommal ci kër àddina kon combat bi jin ay jinne koy bari ah suukar day bàyyi neex suukar du bàyyi neex ku njambaar suukar yaa woo weñ yi ñëw ku jàmbaan suukar yaa ku lekk sa mango suba teel nee naa la euh, sëñ Fallou nga dem marché jënd sa daqaar jàmb ko naan mu jox la daqaar nga dolli si ndox jàmb ko naan mu jox la daqaar nga dolliwaat si ndox jàmb ko naan mu jox la daqaar nga defaat ci ndox jàmb ko naan mu jox la Dakar loolu daqaar piir la Papa booy Djiné daqaar ngay am noonu tamaate loqati loqatee koy jeexal dama ko fas yéene loqati ba mu jeex. kàddu gu mujj gi lan la parce que temps bi jot na heure bi jeex na temps kàddu gu mujj gi lan la. di sant ñëpp. di woo ñëpp di wax ni yàlla na yàlla mottali ah. wax dëgg yàlla ñu bëre rek lañ bëgg. te sénégalais dañu soxlawaat sama sama bis. ku nekk may woowe fu ne naan ma Alboury kañ ngay am komba combat rek laa bëgg ah. ak ku am nga combat kay doog. am nga combat. woote na ci plateau bi ne bu Papa Boy Djiné pare moom pare na man maa ngi nii euh, pare na kon làmb ji bi nii bu ko benn mbokk yàq Papa Boy Djiné say mbokk da nga leen bokk buñ ci wax. say mbokk. dañ leen di bokk buñ ci wax ñu bàyyi ñu ñu bëre combat xale waaye nee na xale waaye combat xale. bu soobee yàlla bu bu bu jour ba dama koy daan ba pare fecc ran pan pin mbax ce mbar na mbax ci biti loolu combat boobu loolu njarndeem la. mbar na mbax ci biti. loolu baaru glace buñ sotti suukar la koo ko sexal du ko yàbbi loolu dafa saf. jërëjëf jërëjëf mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp képp ko xam ne yaa taamu woon émission mag boobu leeral TV seen émission fàqat ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm Seydou Seydou ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax sëydu wax dëgg yàlla yow koo ñaanalul baaxu Seydou maa ngi lay gërëm bu baax a baax di la ñaanal suñu borom defal la jàmm Seydou maa ngi lay nuyu di la gërëm bu baax a baax yaa ngi jàpp si yëf bu baax a baax a baax a baax ñu lay ñaanal suñu borom defal la jàmm te yokk la ba nga yëg ko jërëjëf mbokk yi di leen jox dig daje beneen yoon seen émission fàqat combat bi taxaw na de bu ko kenn jël Assane Ndiaye moo ko taxawal jërë ngeen jëf mbokk yi di jox di daje beneen yoon ak Leral TV.